njëkk a am candidat Sénégal. kii seen candidat. ah mais xam nga ko. kan la kan la damay nga xamante ni. c' est l' le plus présent c' est le président Karim Meïssa Wade mooy candidat parti démocratique sénégalais depuis deux mille dix neuf. moom éligible lul di. éligible amnistie la yaakaar wala procès bu bees. kooku fu muy nekk président waxu euh, ñun euh, mbirum procès bu bees c' pas lié à l' du président Karim Wade. le code électoral en son article L32 moo may président Karim Wade tey mu éligible nekk électeur et éligible raison pour laquelle confusion nit ñi ngi koy def président Karim Wade bi mi ngi éligible depuis euh, août deux mille vingt depuis août deux mille vingt lu tax bokkul ci lu tax bokkul ci élection locale et législative yi. nekk deux mille vingt deux élection locale et législative intéressé wul président Karim Meïssa Wade. xanaa du sénégalais s'il vous plaît présidentielle nga may wax. août deux mille vingt. non mais bala nga nekk bala nga nekk éligible pour ñu fal leen ma yow da ngay nekk déjà électeur. s'il vous plaît yaa ngi jaxase. dama ne la. waaw su ma damay poser question yi yaa moo jox ay réponses. waaw moo tax ma lay tontu. di ñuy dem étape par étape man nag jàngalekat la dama ne code électoral bi dafa ne bu la daanee yenn i daan yi da ngay toog juróomi at doo nekk électeur waaw le 20 août le président Karim Wade retrouver l'éligibilité. nekk électeur. nekk électeur. waaw ma ne lu ko tee à cette époque s'il vous plaît boo ma daggee rek du dem da nga may bàyyi fii conducteur. à cette époque du classe. fii moom bàyyi parce que moom. <laughs> du classe de ab phrase boo ko dugalee nit ki du ko dagg taxaw au moins nga bàyyi ma la galante nga ah, ah, wax ji. Ah, di enseignant moom. waaw léegi. Euh, euh, classe boobu Mansour yaakaar naa xëy na bokkoon nga si ñi ko couvrir. mooy euh, les avocats du président Karim Meïssa Wade génne woon nañu def conférence de presse euh, bi nu ko defee def un communiqué par rapport à yaakaar naa jox nga ko boobu la ñu rappeler les dispositions du code électoral wane ne président Karim Wade il est éligible loolu dafa tege côté léegi nag nit ñi dañuy def confusion lorsque le président Karim Meïssa Wade demande la révision de son procès kooku question éthique et morale la c'est pas lié à so éligibilité. kon fi nekk nii même bu amul procès sax mën naa nekk candidat. mais absolument bu amul amnistie. mais non soxla amnistie ku ko soxla yaa ko tudd. en fait en fait yow da nga dellu si ah, ci ci les propos de ses avocats en fait moom ngay dellu si mooy Demba Ciré Bathily a a dit la même chose maître Michel Boyon avocat au barreau de Paris li ñu doon wax mooy dañu évoquer justement le code électoral et surtout la loi électorale ci wàllu cinq ans yooyu mhm. euh, moo euh, wane ni euh, en fait il est il est éligible waaw ku éligible waaw man ma question mooy ku éligible waaw Karim nga ne c'est l'absent le plus présent fu mu seen président boobu wala seen seen seen candidat boobu man moom problème mooy Karim lan la ragal pour ñëw Sénégal comme il est éligible xanaa dina ñëw battre campagne wala dina ñëw toog ci Sénégal euh, lijjanti boppam dem na inscrire ci li ñu wax. waaw Birahim dal wala Karim dafa ragal je pense que Karim c'est. ah bu ragal woon ñibbisi na depuis longtemps l'homme politique le plus courageux d'accord ngeen lool. ah courage nag mooy ñëw après waaw s'il vous plaît après trois ans et demi fan ko doon xaar sëqatul deful dara est-ce après trois ans et demi de prison ñu teg ko brimade bu nekk parti démocratique sénégalais yi jël cinquante responsables tëj ko kaso li Karim Wade bi xaar président Karim Wade pour ñëw saa yu jotee mu ñëw ah te yéen a ngi siy wax moo tax ma ne c'est le plus présent yéen a ngi siy wax loolooy la ma nekk Karim Wade moo yor bës bi n'est-ce pas yorul bës bi de <laughs> <laughs> déedéet yorul bës bi de. moo ko yor yow xam nga ko sax non yorul bës bi de. la <laughs> ñu gis ñoom ñu fi nekk ay ñoom Mafal Fall ñu fi nekk. mais ñooñu ñun ay exécutants la ñu. Karim président Karim Wade est notre candidat. ñun xam nañ ne c'est le candidat qui a le meilleur profit dinañ si ñëw. ba élection yi jot mais ñu doon wax sànq. ba élection yi jot da ngeen ne da ne din après mun nañ si ñëw. waaw dañ ci ñëw non dañ ci ñëw mais mais mais mais seen waa ji ngeen sàng bëgg koo teg ci kanamu Sénégal yi te kenn gisu ko takk ndeer dong la ñuy seet loolu Sénégal yi duñ ko nangu ma bàyyi na sax WhatsApp ah bàyyi na sax WhatsApp na sax yónnee message nangu loolu nag moom moo ko doxal PDS waaw non teewul président déjà déjà banlieue bu Ndakaaru PDS mu ngi tas ndax moom comme fa tegoon nu mu tudd euh, ki nga ne journal démb. Hmm. mooy ki remplacé woon Ba Bara laa là. waaw euh, seen responsable. fan si euh, banlieue Guédiawaye. non Guédiawaye par Bara Gueye. maa ngi koy demb démb rek démb ñu ngi koy jàllale hmm. journal seen responsable waa PDS nee nañu. doxalul benn yoon doxalul hmm. daanaka. non s'il vous plaît bi ñu nekk ci processus de renouvellement man je viens d'être nommé secrétaire général de la section de Diamaguène Sicap Mbao bi ngeen doon wane sànq. waaw mhm. processus la ñu ngi renouveler on renouvelle toutes les sections mais renouvellement dafa indi day am ay tiraillement amul problème ah. Mhm. ñu dina am dooleel nekk ñaar mu di diir mbagg ku dooleel nekk ku mais le parti est en train de régler ces problèmes bu mu fa sànq da président Karim Wade fan la jëm mais Karim Wade ña ko gëmoon sax bàyyi nañ ko. yee tey la seen euh, euh, kaay ma wax. la mais je te donne un exemple ay Maïmouna Bousso ay ñenn saako ñi nga xamee ni Karim taxoon na ñu dugal leen ci kaso. waa mais ñi nga xamee ni dañu doon topp Karim. nekk ay karimiste nu ñu ko mën a wooye c'est pas forcé que ñu war a nekk ci biir parti démocratique sénégalais mais amoon yaakaar ci Karim Wade moom ngeen jël def ko seen candidat mais ñu bëri sax dellu euh, euh, li ñu daan delloo nañ avance war nañ ko ginnaaw parce que justement ka ngay xeexal mais day fekk mu teew war laa mën a jàppale mais ñu ci bëri jàpp nañ ni Karim Wade moom nga xam ni absent il est pas seulement absent li ñu naan absent le plus présent loolu nga wax mais c'est l'absent le plus absent aussi Euh, indi indiwoo indi woo xayma ni étude da nga tëb rek ne euh, président Karim Wade Karim yi sii ko topp nga lib benn nit dama ne du ñu nekk ci processus de renouvellement tey c'est le PDS qui fait l'actualité et pourtant nit ñi defuñu effort pour xool la xam PDS c'est-à-dire nous sommes le seul parti aujourd'hui bu bu bu bu song benn processus de renouvellement ba àgg fi gis nga tey fii ñu toll mun na la wax le parti démocratique sénégalais ñaata militant la am ak les karimistes qui sont entrés dans les rangs nekk ay responsables de secteur ah, suñu force de frappe ñun xam nañ ko. yéen xam ngeen ko non waa PDS yéen. lañu ko jàngee cest à bu ngeen di wax Sénégalais yi da ngeen foog ne Sénégalais amuñu xel pour xalaat yow Mafal. Mm-hmm. mën nga wax ni PDS mën ngeen xam si ñaata militant la am. waaw te yéen jaayu leen carte de membre commencé renouvellement benn quartier doo nga naan renouvellement. yéen waa PDS lu tax lu tax ngeen foog xel dangay ngay affirmation wala déet. non wala émission bi nga bëgg mu def. loolu mooy réalité dama ne la. waaw mais may xamoo ñaata membre la am. waaye waaw mais may ma wax la xam nga. ñaata membre la am. Eh, ma taxaw fii wax la xam nga ne doo ko xam et je continue taxaw fii naan la à temps de membre. damay rectifier rek que li ngay wax ah ma ne nous sommes le seul parti tey. bu engagé ay renouvellement depuis quatre ans di nga ko arrêté woon mais tey processus dafa jeex maanaam tey boo ñëwee. département de Pikine mun na loo temps de secteur moo fa nekk. secteurs yi bu ñu jeexee di dañuy monter section la section correspond à la commune buñ ko monter mu am les responsables mais ku def loolu xayma si et d'ailleurs ak gën yu niveau boo xamante ne d'informatisation tey un seul clic di lay wax nga avons temps de femmes. tant de jeunes tant de cadres tant de tant de tant de loolu moom amul problème quoi c'est une affaire interne xayma bi ñu xayma yow sax am nga ci ay indices yoo xam que depuis bi ñu jógee daanu nguur gi ba tey le PDS tourne autour de quatre cent cinquante mille voix quatre cent cinquante mille voix loolu leerul ban parti politique moo am loolu Sénégal. mais hmm, est-ce que données yi changé wu diggante. deux mille deux mille non diggante barki démb jaay élection législative ak élection locale. am bi te nit ñi non s'il vous plaît nit ñi du ñu bàyyi si loolu xel du si jéem a analyse c'est-à-dire les points faibles entre guillemets du parti. yan élection ngeen am loolu yan élection. élection locale on a quatre cent cinquante mille voix élection législative quatre cent soixante dix mille voix. PDS pour le parti démocratique sénégalais amul parti bu ko am Sénégal. kon kon amoo leen kon demoo leen ci élection yi ab coalition. Euh, wala wala yi def. inter àndoon ak yéen non non coalition. wàllu Lamine Diallo yéen la àndaloon wàllu am nga débat Abdoul Mbaye ki dinaa fa ñëw kon ñooñu duñu ay parti ay takk der lañu ay ay toppe ah. lañu xam nga ñëpp ah, ah. lii la ay ay toppe lañu ok c'est constant amul parti boo xamante ne au Sénégal qui tourne autour de sa coalition yi nag moo fi nekk ku nekk mun na coow mais léegi tey Sénégal dafay laaj une analyse très scientifique de la situation ñu bàyyi ay effet de buzz. waaye ban scientifique moo leen ban scientifique. bàyyi leen seen terme yooyu c'est quoi scientifique. yow doxalin politique du Sénégal amu fi scientifique. bàyyi leen seen terme yooyu di la demal Sénégalais yi fii électeurs yi mooy suñu maam yi nekk Fongué Limi Mafal. waaye loolu la ñuy wax ay études scientifiques qu'est-ce qui est scientifique ici qu'est-ce qui est scientifique ici. ñoom loolu ah, scientifique mooy ñu dem élection am ñu bëgg PDS plusieurs fois ñu annoncé loolu jamais réalisé. loolu mais seen résurrection wala seen dellu si PDS. mais coalition wala intercoalition moo leen mayaat doole bi ngeen am. waaw xam na ko xam ko si da ngay wax wàllu scientifique. mais li ko waral mooy PDS ñu bari dañu ne woon PDS jeex na euh, lu bari soppeeku na ngeen perte ci yoon bi. après 2012 ñu bari ci seen i responsable ñoo xam ne ni dem nañ ba ubbi yeneen i parti PDS boobu. 2019 euh, bokk leen sax ci élection présidentielle bokk leen sax ñu ñëw élection territoriale ak euh, euh, lii di législative ngeen gis ci territorial la ngeen amoon yenn yi ngeen perte ko ngeen ne xaar leen législative ñu dugg ci intercoalition am déjà seen coalition wallu dem ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Yewwi ñu ne yenn bërëb yi nga xam ne PDS am na fa tuuti force naka ñeneen yi jàppale <clears throat> ñu ci mel ni waa Yewwi ak waa wallu ñeneen yi ngeen àndal pour ki jiitu ci foofu ca PDS ñu ko def ko député maanaam kon tey bu ngeen amee ay député ca assemblée nationale peut-être ay benn wala ñaar yoo xamee ni ñoom ñoo ko xeexal seen bopp au nom du parti démocratique sénégalais am na ci ñu bari ñoo xamee ni mais intercoalition ak coalition wala moo tax ngeen nekk député ci assemblée nationale quelle est aujourd'hui la force du parti démocratique sénégalais mënuñu ko intercoalition moom may aussi waa yooyu que Euh, hmm. ñaari accès laa la jox loolu laay wax Mansour mu bañ ko dégg da jël ñaari élection ma ne la bii di ñu am quatre cent cinquante mille voix bii quatre cent soixante-dix mille voix jëlal loolu le hmm. PDS mosul cité PDS dee woon na fan la dee lan mooy indicateur bi amul xanaa ñàkk bokk non bu bokkul ci élection mooy dee na comment PDS bu bokkul ci élection législative euh, kii présidentielle mooy dee na non non non waaw loolu loolu loolu la mais ñu dem élection ñu indi suñu 450000 voix teg ko. kon yow foog ngeen yaakaar ngeen am candidat ci 2024 yéen yaakaar ngeen ko yéen. ñun candidat am nañ ko bu bëri bien sûr loolu c'est derrière nous. parce que kon ngeen kon kon da ngeen bokk baara yëgoo. Euh, lan mooy baara yëgoo. bu ngeen baara yëgoo doo leen am. candidat moom mooy lan. baara yëgoo li xew tey nii. mooy mooy diil bi ñuy wax diil bi. Euh, diil ak kan. ah, ah qu'est-ce que posé nañ la question. voilà donc euh, foofu souvent dañuy am cawarte di si sotte di si tontu. Hmm. ki may njëkk a départ mooy la kat ngeen di teg dil si boppu ab si kanamu PDS